fàttaliwaat mbokki taalibe yi charte yi nga xam ni moo lal dëkk bi fàttali ni itam li nga xamante ne ni moom moo di tere yi ñu fekk ko fi te itam dana ko fi bàyyi loolu yi moo waraloon xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké woowoon jaraaf bu dëkk bi ñi nga xamante ne ni ñoo koy xelal di ay conseiller municipal am dignitaires yi ba ci notaire yi ak chef de village yi fële ca Daaru Minaan ngir sëkk ak ñoom waxtaan wu yaatu. kon nag nun ñi dëkk ci dëkk bi nu am taw tawféexi dëkk fi ci wetu sëriñ bi nekkal ko fi. war nanoo gën a xam suñu bopp bu baax te xam ne sëriñ bi noonu ma ko waxee woon boolewul ak dara ak boromam loolu moo tax bi muy ñëw fii ci dëkk bi àndul ak kenn moo boromam rekk ànd nekk ci àll bi ba kenn xamul fu mu nekk ba sunu borom won ko fi mu ko bëggee gannaaw ba la door a feeñ kon nag sunu warteef lun mën a gën a xam ci sëriñ bi ñuy jéem koo xam jéem ko nekkal ci ni ko bëggee kenn ku ne ci nun ab dongo ab dongo dong la war a def boppam kenn ku ne ci nun ab dongo dong la war a def boppam muy man muy keneen nag ab dongo dongo la war a def boppam rawatina nag ci dëkk bi kon gannaaw nga xam ne mbooloo moom bu dajee fekk ñu amab liggéey liggéey boobee def caa war des caa war a def itte bu baax. si noonu nag sëriñ bi sàkku na ci ñi nga xamante ne nii ñoom la ñu jox ay ndombal tàng ci dëkk bi ñu rekk bàyyi xel li nga xamante ne nii moo di solos dëkk bi ak li taxoon borom sànc ko loolee nag bu mu tee kenn mu wéyal liggéeyam ca anam ya mu jaaree yoon. kon gannaaw yéen yéen la yàlla dogal ci jamono jii nu toll. yéen lañ dénk liggéey bi ngeen gën a xam bu baax. liñ leen dénk mooy lan. ak nan lañ koy yore. ak nan lañ koy sàmmee. weesuwul kenn ku ne ci nun mu xam ne ab dong dong la ndigal rek la war a wéyee wéye gi ndigal googu day doon ndigalal sëriñ bi rek sëriñ bi digal nu lu dul suñ yitte nay yàlla sëriñ bi digal nu lu dul suñ yitte nay yàlla ci biir loolu ci biir loolu booloo gannaaw booloo gi mënut ñàkk ak am na loo xam ne mu ne su ñàkk sàmm faw mu faw ñu am ñuñ ko sàmmuloo. ñee ñoo gën a war a xam seen bopp bu baax a baax. xam ne boolewul ak sëriñ bi boolewul ak dara borom kon waruñu ko booleeg dara. gannaaw kàddu soññe yooyu sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ñaanal mbooloo mi laata ñuy dellu rek ci mbaar mi nga xamante ne ni moom la ñu dippee soxna jaara fekk fa ay bernde yu am solo.